daje ñëpp ci bésu tey mu nekk bés bu am solo ñu ñëw ci ndigalu kilifa réew mi monsieur le président de la république fekk si li ngeen def tey maanaam teg lu am solo seen plateforme bi plateforme bi tur bi muy les ànd jéego yaakaar naa loolu lu am solo loolu mooy engagement ak détermination donc di ci féliciter madame le ministre conseiller Zahra Iyane Thiam madame Diop di féliciter aussi suñu xarit monsieur Dame Diop yaakaar naa def na fi exposé bu am solo bu leer ku ko dégg xam ni kii li mu jàng leer na nañ donc euh, daam ñu ngi lay félicité di la sant di la féddale aussi suñu xaritoo di ko wax ci kanamu mbooloo bi di félicité aussi responsable jigéen yi fi nekk jógee fu sori ñëw tey Thiès ñu accueillir leen di félicité naturellement suñu sœur euh, madame Monique Thiandoum ci organisation bi di féliciter ñépp ñi fi ñi fi toog bañ a lim pour bañ a juum di leen wax ni li ngeen def tey lu am solo la plan Sénégal émergent président def ko xalaat boobu mi ngi ci opposition parce que 2010 2011 ba 2012 président dafa ni yoonu yokkute yoonu yokkute boobu président jiital ci jigéen yi ak xale yi yaakaar naa boobu gis-gis bi mu am tey boobu feeñ na ci boppam bi mu demee ba dawal tuuti mu tuddee ko plan Sénégal émergent mu war a dem ba deux mille trente cinq mille trente cinq yaakaar naa ku ko wax waxalul boppam dafa waxal avenir bi donc mi ngi waxal suñu doom yi mu ngi waxal suñu set yi donc loolu yaakaar naa. lu am solo la ci réew mooy vision président de la république te président ku war a am vision la un président de la république un guide doit avoir une vision et le président Macky Sall a une vision claire du développement de ce pays yaakaar naa action yi ñu def booba ba léegi bi président toogee fii ba léegi kenn mënu ko lim ba mu jeex duma ko liim parce que wax nañu ko waxaat ko mais li ngeen def tey seen plateforme bi ànd ci avec euh, le DG de trois pt yaakaar naa formation yooyu bu ngeen ko defee incha allah li ñuy wax émergence da ngeen ci ànd rek émerger di émerger rek te yaakaar naa loolu lu am solo donc di leen indil félicitations monsieur le président de la de monsieur le président de la république sax di féliciter mbooleem ñi fi nekk di leen wax ni mi ngi leen di seetaan mi ngi leen di suivre ci ni ngeen di def. te dina continuer di suivre donc euh, liggéey bi man mën naa témoigner liggéey bi ngay apporter au haut niveau ak côté de monsieur le président de la République te liggéey rek moo la moo la saf ci nga nekk te yaakaar naa loolu aussi lu am solo la laaj na ngeen xam donc li ñu ciy wax rek mooy nii ñu ngi leen di souhaiter plein succès ci li ngeen engagé tey di wax ni président de la République joxe na décision. ñun nag aussi lépp liñ ci mën incha allah dinañu ko def pour vous accompagner pour wane ni vraiment li ngeen def saf nañu neex nañu maa ngi leen di gërëm di leen sant. ci plateforme Andi Jéego yor euh, volet formation bi nga xamante ne dañu war a lëkkaloo ak euh, waa 3FPT tey li ñu fi dajale mooy dañoo bëgg a màndargaal suñu ànd. ndax euh, toll na ci at ba nga xamante ne euh, organisation jigéen ñi ñu ngi daje di xalaat di waxtaan di nas di seet naka lañuy ñuy war a mën a bokke euh, ci plan ci plan Sénégal émergent bi kuréelu jigéen ñooñu yaatu na am na jigéen ñoo xamante ne dañuy yëngu d'abord sur le plan religieux am na ñoo xam ne dañuy yëngu sur le plan de sur le plan de la formation am na jigéen ñi daal bare nañ ci ndax euh, boo seetee fii Sénégal organisation de femmes yi euh, dañuy daal di polyvalent maanaam secteur bu nekk dañu ciy dugg te plateforme bi dinañu may ñu ànd boole suñuy doole ndax mën a soobu bu baax a baax ci koom-koom bi waaw mutuelle boobu bi ñu doxee ay weer euh, xam ngeen ne jigéen taxawaayam ci kër gi euh, daanaka dafa dafa ëmb lu bare te ci wàllu mbir gu yaram moom ci boppam balaa mën a yëngatu ci ay activité am dafay wér kenn ci njaboot gi aussi muy borom kër gi muy doom ji bu jarbaat yi aussi bu ci ku ci feebar rek daf koy daal di yëg moo tax ñu ne pour yombalal ñëpp ndax kuréel bi dafa ëmb ñëpp comme ni ma ko waxee sànq ñi am doole ngi ci waaye itam ñi new doole ngi ci am na itamit ñoo xam ne am nañu tuuti xam-xam maanaam ah, xam nañu fi ñuy teg seen tànk mais am na ñoo xam ne xamuñu sax euh, ci mbirum mbérgu yaram nuñ ciy mën a def ba bu ñu feebaree ñu war a mën a jóg am ay buntu yoo xam ne dinañ fa mën a jaar ngir faju ak faj seen njaboot kon loolu moo tax ñu ne euh, nañu taxawal mutuelle de santé boobu yaatal ko nag te ci kanam tuuti rek incha allah dinañu taxawal euh, assemblée générale boo xamante ne dina boole membres yi yëpp membres yi nga xamante ne dañuy jóge aussi senegal yëpp. mutuelle bi dem na ci dëkkuwaay yëpp ndax plateforme bi dafa dem Sénégal yëpp te bëgg nañu bu ñu taxawalee mutuelle bi bépp sénégalais bu bokk ci plateforme bi yëg si boppam bépp sénégalais bu bu nekk fii senegal rek war a mën a sax euh, jëriñoo ci mutuelle de santé boobu. Ah, plateforme lan moo ko lëkkaleeg plateforme bi mbirum développement moo ko yëkkati ndax organisation yu bare ngi ci mbirum développement nag moo ñu moo ñu gën a soxal waaw. waaw gis na pla kuréel gi ñuy wax plateforme ànd jéego mu lëkkale kuréel kuréel yu bari. muy ci wàllu syndicat muy ci wàllu diine muy ci wàllu societé civile wala secteur privé wala secteur informel lenn rek a leen boole ñu ne dañuy lëkkale seen doole ndax boo seetloo kuréel gu ne ca pàcc ba mu ne mi ngi ci yëngu waaye dañu jàpp ne xëy na lu benn mën wala ñaar mbooloo ko ko dàq te boo gisee ñun ñëpp ñu mën a jaxasoo booloo nekk benn li ñu yitteel mooy bokk ci li nga xam ne dina indi koom ci biir réew mi li ñu yitteel mooy politique yi nga xam ne nguur gi teg na ko fi te ñu jàpp ne gannaaw bañ ko fi tegee ñoom moomuñu ko askan bee ko moom te ñu war ci am taxawaay ak wàll bu wóor moo tax ñu ne muy ci wàllu jàng ci wàllu wér gi yaram ak ci leneen lu ni mel lépp loo xam ne PSE bi jagleel na ko jigéen ñi ñun dinañ ko jël fexe nuñ ko màndargalee Euh, biñ ciy tàmbale mooy formation bi gis nañ ne xaatim nañ kayit goo xam ne fii ak ñaari at fonds de formation professionnelle bi dinañu euh, gunge ndax kuréel yi nekk ci plateforme bi mën a gën a ñongal seen liggéey mais également mu jëm ci wàllu wér-gi-yaram ndax dañu jàpp ne dañ naan bu jàmm amul koom du am waaye bu wér gi yaram amul tamit jàmm du am ba koom di am moo tax ñu fas yéene également ci wàllu couverture maladie universelle taxawal euh, mutuelle de santé boo xam ne junni nit danañ ci bokk te mutuelle bi wax dëgg yàlla bu ñuy waxal rek fii mbir mi soqee ko mooy kenn ci suñu membre yi ku bokk ci ñun doomam feebar mais prise en charge bi xaw a yéex ba suñu borom jël ko mu metti lool ñu ne dinañ taxaw ndax kuréel gi dafa ne solidarité solidarité boobu ñu wax ñu bëgg ko jëmmal ci jaarale ko ci mutuelle bi waaye du ñu yem foofu ndax li ñu tax a jóg du politique li ñu tax a jóg développement la comme développement moo ñu tax a jóg nag ñun ñëpp kenn ku ci ne dana lëkkale indi dooleem ñuy woo jigéenu Sénégal yëpp ñu ñëw bokk ci ngir ñu mën a bokkandoor tabax li nga xam ne ñoo ko bokk mooy Sénégal waaw euh, sa laaj bi bu doon gën a jub danga ma naan dañ fi gis waaye politique yu bari ci te ñu bokkuñu ñuy même kuréel politique ndax boo seetee réew mee ngi fi APR a ngi fi PDS a ngi fi yeneen parti LD ngi fi yeneen parti bokk gis-gis yeneen parti wax dëgg yàlla ñu ngi fi waaye loolu taxuñoo jug ndax kenn ku ne mën nga bokk ca la ngay yëngatu mais li nga xam ne moo sos plateforme bi te ñu mën ci bokk te mu mën a ne te kuréel yi ni ñu wutee lool mën a jaxasoo mooy développement ndax bu ñuy seet ci dialogue national bi nga xam am fan yi ñu génn te ñu ne réew mi moo ko moom réew mee ko soxal am na ñoo xam ne demuñu ci te pourtant ñëpp a ko bokk loolu day wane ne xëy na bu ci politique nekkoon jafe-jafe ñu bokk nekk dina metti lool mais lii ñun gëm nañ ne du politique politique nekku si li si ne mooy lu jëmmal mbir mi kanam lu ko jëmale kanam donc ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy wéy